jullit bu amee problème sax ay borom nopp weex ñu naan ba mandi ñooy toog na dañooy régler problème yu yow xamuloo yàlla xamuloo yorunti bi xamuloo luy problème mu problème boo xamul noo koy régler moo tax ñu ñu yokk coow waxtu wu nekk ñuy rayante fu ne yow xamuloo jullit nooy xamee problème yu jullit xamuloo problème bi noo koy régler kon doo mën a régler dara waaye yonent bu tedd ba xewee ci araab yi bugg xeex moom ci xelam mu sell mi loxoom bu tedd ba gaa ci xajarul aswad ba ci gaa yi jotee xee mu ne indi leen malaan ñu dal teg ñu dal di teg malaan ma mu jël di jël loxoom bu tedd bi jël xeer wu tedd ba yéen ñi aj màkka ñëpp gis ngeen ko kilifa gu tedd genn ko yàlla fay yóbbu na ñu bari màkka yenn ñu ci yàlla boole ñu ñëpp ñu bari dem nañ màkka ci ay góor ak ay jigéen at bi ma fa fekk ma gis xale bu jigéen boo xam ne ndeysaan amagul sax jëkkër mu aj si ma gis ay sàmm yoo xam ne seen caay yi ñuy sol ca ca ca nag ya moom lañ indi biir Makka ma ne ndeysaan dëgg-dëgg yaay jàmmee baax wallahi li ma la wax dama ko sant yàlla de parce que dama xam ne ñooñu bu duroon kilifa gu tedd gii balaa ñu dem Makka liggéey bu rëy rëy ndax duñ jaay nag aji mënuñ jaay gerte aji waaye kilifa billahi li ma la wax du waxi caaxaan de du waxi du waxi politique de lii dafa nekk loo xam dañ ko dund ñun ñu gis ko ay nit ñoo xam ne naam ma foo naa joolaale dañ amee nag rek waaye joolaale <laughs> yonentu bu tedd bi dal di jël loxoom bu tedd ba teg jël doj wi teg ko ci kaw malaan gi ne yéen ñi waroon na xeex ñëpp juboo leen léegi kaay leen téye malaan bi ñu dal di téye malaan bi dal di ko omot dox dox ndànk-ndànk ba ca fañ war a teg xeer wa mu dal di jël loxo bu tedd bi jël xeer bu tedd ba dal di ko tabax teg ko fa mu ko war a teg jàmm dal di delluwaat ci biir arab yi xeex ba dal di fay jeex lu tax jullit yi war ñu mën a jëriñ ci jikkoy rafet yooyu sol solfu seen problème yi ñun waa Gambie nañ téye ci loolu loolu moo tax borom réew mi oote ci ja ñëpp na njàppoo loolu moo tax mu jël kàddu lislaam gi jox ko subrinami kantu ne kaay leen ngeen déggoo su jullit yi déggooxee rek lépp lu ñëwati dana yomb ci suñ kanam lu bëgg a tasaare nit ñi du jàppandi daataa fekk kilifa yi teg nañ fi leen teg nañ leen fi ne war teg ndaw yi nangoo topp ci seen kaw bu loolu amee rek jàmm am bu amut luñ yuutooti coono lay nekk yal ñu ko yàlla dàqal euh, ñu ngi leen di gërëmat di leen santati baax di ñaan yàlla borom réew mi yàlla saxal ko fi te yàggal ko fi suñu yaay ju tedd ji itam nga xam ne wax naa ne jigéen ju man góor ñu bari la ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam loxoom yàgg ci kaw loxol kilifa gi ñuy teete réew muy dem ci kanam kanam yéen ñi nga xam ne itam yéen a koy jàppale ci ay imaam ak ay yaay yu tedd yi nga xam ne fu ni ko mbokk yi waxee woon ci gannaaw fu jigéen nekk daara du fa baax nag daara daara du fa baax yow koo xam nga tabax kër ba mu rafet nga nekk fa yow kenn malaan yu xesaw bool yu kenn raxasul loolu rek a fay nekk. waye bis bo tabaxé nek ba jël jongoma ju bax dal di ko ba dugal dara dula la xesewati dara dula la tilimati jigéen yena am jeni yena bax yena len fi yàlla yagala gor ñi yena len gor ñi yàgg am wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam jërë ngeen jëf a ah, baraka eh, mor keɓa sayin kana preacher min to wala mo aissatou diop ah, janabina aicha ummul muminin talibol aicha ummul muminin five minutes عائشة أم المؤمنين نو استنى شوية استنى شوية شيء أنا هلاي أي فين كنا هاتي فولو بام نيناتي قسمة فو على سكول آه، كناتا جانا إسلامي union talindin kunjang ala grade 12 taawalto foofu la jëlee grade 12 ba pare mu dem Nigeria si jamiatul hikma mu génnee fa léegi mu ngi liggéey fale si external affairs foofu lay liggéey moom itam mun na english mun na arabic incha allah alhamdulilahi rabil alamin balaa mu ñëw na yi ñëw na gaaw na gaaw am ami وضوء رسالتنا رسول الله قدوتنا ودعوة رسالتنا به كانت سعادتنا رسول الله له وجبت محبتنا رسول الله به كانت سعادتنا رسول الله له وجبت محبتنا رسول الله رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا سعادتنا رسول الله لو وجبت محبتنا رسول الله قد قملت مزاياه ورب العرش رباه لقد قملت مزاياه ورب العرش رباه فكل الرسل رسول الله إماما عند مسراه رسول الله فكل الرسل رسول الله إماما عند مسراه رسول الله رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا رسول الله له وجبت محبتنا رسول الله إلى المعروف يدعونا وبالإحسان يهدونا إلى المعروف يدعونا وبالإحسان يهدونا وبالقرآن يهدينا رسول الله وبالأخلاق يهدينا رسول الله وبالقرآن يهدينا رسول الله وبالأخلاق يهدينا رسول الله رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به سعادتنا رسول الله له وجبت محبتنا رسول الله merci daan jàmbe jeere jafati daga daga yow te jàmbal nga. merci jàmbe jeere jafati daga daga yow te jàmbal nga. dugal ko si peje fuju jàngale jigéen ñi si Gambia. jël sa alal dugal ko si peje fuju jàngale jigéen si Gambia. kon ñun war mooy góorgóorlu am yar am góor am teggin. kon ñun war mooy góorgóorlu am yar am góor am teggin. boolente so si wax ak jëf ndax. sax mooy taalu islam moo leen kersa ana doo dem leen jàngi mboo leen jafate roy tey sunna bi moom képp ku si jàngul ni ngay moom képp ku ci jàngul soo màggee dox lii ngay taam yaay boy yow day may ñaanal

fasidan ak nguuram ak nguuram ak ñu ko jàppale aminu leen